li waxtu wi jàmp-jàmp ci waajtaayal màggal Touba atum 2020 teewut ba xalif général de murit cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké daal di séqi jéego jóge daarul minam ak si fii ci complexe Hizbu Tarxiya ni mu ko baaxoo defee ci weeru safar wu nekk loole nag bu mu egsee ci barab bi fekk na mbokku taalibe yi amuk waajtaay ci baral ci kilifteefuk Serigne Atou Diagne daa di ko séenu waaye tamit teral ko dalal ko ci résidence bi nga xam ne moo nekk fii ci complexe bi moom sëriñ bi ak délégation sëriñ Moussa Nawel daal di jiite naka jekk protocole bi bi ñu agsee ci barab bi nag mbooleem ñi nga xam ne dañuy yëngu ci njàngum xasaayit ci yëkkati dugal nañ seen i kàddu ci njàng moo xam ne ànd nag dal doore ko ci ndigal loo xam ne sëriñ bi ci boppam moo ko joxe diir bi nga xamee ne mbas mi teew na fi muy xasida bi xaq wajikal karim waaye tamit toftal ci xasaayit bu ruum naa loolee lépp ku tedd kii mu ngi koy teewlu bu baax a baax noonu lañ daal di saafonteeg mbooloo mi waaye itam bi bi waxtu tàkkusaan jotee sëriñ bi ci boppam moo jiite jullik takusaan ci jàkk ji nga xam ne moo nekk fii ci complexe bi mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekkoon ci barab bi dëkkandoo yi ñëpp daal di buur fasaasa dikk fii ci complexe bu tarxiya ngir rek saafonteeg ak sëriñ bi seen xar kanam taar ak mbég wu tar feeñ ci noonu lañ ko àndeek sëriñ bi ba ginnaaw tàkkusaan sëriñ bi daal yëkkati jotaay bi muy jotaay woo xam ne nag góor jigéen mag ak ndaw mbooleem ñi nga xam ne nekk nañ ci complexe bi ak li ko jege daanaka fexewoon na njëg ba teew ci ñii di yëkkati seeni kàddu ñii di seenu ñii sax di yéeg ci makkaan ngir rek mën a jotee ci xaar kanamu sëriñ bi ginnaaw bi la ñaanal ki nga xam ne moo jiite barab bi muy sëriñ Atou Diagne moom itamit mu fës ci kanamam ak cant waaye tamit mbégte wu rëy woo xam ne mënee ko misaal nganuk cheikh mouhamadou muntaxa bi la nag moo ngi am ci jamono joo xam ne daanaka desadudul ñaari fan laata ñoo dugg ci bis bi nga xam ne cheikh ahmadou bamba moo ko digal mbooleem ñi nga xam ne ay taalibeem lañu ay jegeñaaleem ak i soppeem ñu dundal ko muy bésug cant goo xam ne jàpp nañ ko ci talaata gi juróom benn fan ci weeru octobre atum 2020